الذي قلت بيننا كتاب قديم وقل لي ومونسي هداني بلادي ونفسي بي زكاة كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الردى لمولاي أبي وأمي مع القبلات

لك الواحد القهار رب الورى لك العلم والأمان والخير كله عليك صلاة الله يا من لك الفن يا ممتاز يا سيد الورى عليك سلام الله ndax dégguñ la ci lenn loo warta nekk mu ni ñu ngi lay bàyyi xel bu baax Mbàkke te di la ñaanal ci barke Sëñ Fallu barke Alaaji Mouhamadou Lamine yàlla bàyyi la fi amin ndax liñ teg bët ci yow moom dal na sunu xel ndax amuñ lu dul Sëriñ Tuuba te yow bokkaale woo Sëñ Tuuba yàlla na nga fi yàgg Mbàkke amiin jërëjëf kon nanu tàllal sëriñ bi ñaanal nu sëñ bi nee na sant na bu baax sëñ am mooy tontu nee na sant na bu baax a baax. bis bis borom bis bii. nee na borom bis bii. day day day ku murit yëpp bokk. day ku murit yëpp bokk muy El Hadj Momadou Lamine Baara. mën nga ne waa réew mépp sax. nee na mën nga ne waa réew mépp sax. waaye murit yi dañ cee am seen xaasi bopp. waaye murit yi dañ cee am seen xaasi bopp. ci biir loolu. nee na ci biir loolu. waa kër sëriñ Fallou. mi ko sëñ mi ko suñ borom boole. mi sëñ mi ko ko suñ borom boole. ñu am ci seen xaasi bopp. ñu am ci seen xaasi bopp. waaye kër sëñ Abdou Khadir itam. waaye kër sëñ Abdou Khadir itam. amaat ci seen xaasi amaat ci Alaaji Baara seen xaasi bopp. moo tax bis bii. moo tax bis suñ bisu bopp seen bisu bopp la ñoom Serigne Cheikh ñi ak njabootu sëñ Abdou Khadir yëpp. dañ fee nekk. nee na dañ fee nekk. war koo woote. war koo woote. sañ koo sañ koo woote. bu dutoon loolu. nee na bu dutoon loolu. nu war fee nekk. war fee nekk ñoom ñii. def ko nii ñu koy defee. defe ko nii ko sëñ Moustapha ak njaboot gi di defee. moom mi xam na ci lu nee na sëñ Moustapha mi xam na ci lu wér. kon koy sant moom itam. kon sëñ Cheikh nee na moo ngi sant sëñ Moustapha bu baax a baax. ak mboolem ñi bokk ñi mu bokkal Serigne Touba. ak mboolem ñi mu bokkal Serigne Touba. ndax ñi mu bokkal ndax mboolem ñi mu bokkal sëñ Touba. gërëm nañu moom itam gërëm nañu taxawaayu sëñ Moustapha laaj baara rafetlu rafetlu na itam ni mu taxawoo waajuram bi mu fiy nekk. nee na rafetlu nañ tamit ni mu taxawoo waajuram bi mu fiy nekk. ak nii mu jiitee kër gi. ak yàlla na fi yàgg. ñu ngi ko ci ñaanal mu am ci ndam. sëriñ bi nee na ñoo ngi ñaanal sëñ Moustapha mu am ci ndam. di ñaan njaboot gi yëpp. di ñaan njaboot gi yëpp. ñoom ñëpp sa sàmm leen. ñoom ñëpp sa sàmm leen. musal leen. musal leen. àggale leen fa ñu bëgg ak ci barkeb sëriñ bi kon ñu tàllal sëriñ seex ñaanal nu baay baara fallillah bismillah tey moo way seex fallullah fallu nga ne lu yàlla la bëgg naa la tey seex fallullah دم باري سي سي لو مسوخ صبرهم دفن لولا باري اي دم باري سي يا بيدي شيء لو مسوخ sa borom def na ana soppay Sëriñ Fallu waykat yi ku na way kala neexo man ma way la ndaxte yaa ma neex Seex Fallu la juma bu ku na way kala kala neexo man ma way la ndax yaa ma neex Seex Fallu laa kala neexo man la ndaxte yaa yi bugg na way kala neexo kala man ma way ndax yaa ma Seex Fallu ana soppey Sëriñ Fallu neex a way yaa neex a taa Seex Fallu yow de ni nga neexee la say way ma na neex ndax xam nañu ni daayira bëgg fàllu yi yow mi yaa ci njëkk bokk ñëpp su ko sag jot maye woon nee na nu xam nañ ni bu ko sag jot maye woon yaay président daayira bëgg fallu yi ndax yaa jiite bëgg fàllu yi nee na mooy numéro un kon li ngeen doon wax léegi mooy waxam ji moom la leen tontu mooy dëgg ñoom nag nee nañu ñoo ngi ñaan yàlla ci barkeb alaaji Fallou min amul ku dul moom yàlla nañ la fi yàgg a ci barke Sëñ Fallou Mbacké dafa xat moo tax ñu ni nañ jottali kàddu yooyu rek te nga ñaanal leen. sagal teg. sëriñ bi nee na li mu ciy teg mooy sant leen. gërëm leen. gërëm leen. di leen yëgal ne. di leen la moom. ndax sëñ Fallou mooy lépp su ngeen lijjantee ba doon ko nag su ngeen lijjantee ba doon ko wax leen alhamdulilahi rabbil alamin wax leen alhamdulilahi rabbil alamin dinaa ñaan ci dara jaam nee na dina ñaan ci dara jaam ngeen wér ngeen wér gudd fan gudd fan am am lu ngeen di wut am li ngeen wut te muy lu baax te lu baax sëriñ bi nee na sant nan bu baax ñu ngi bàyyi xel bu baax na ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax ndax soxna Awa Diop. nee ndax soxna Awa Diop mii. fii la féete. fii la féete. waaye ñun ñëpp fi la féete. waaye ñun ñëpp fi leen féete. ndax lépp sañ Fallou. ndax lépp sëñ Fallou. kon yàlla na leen fi yàlla bàyyi. kon yàlla na leen fi yàlla bàyyi. sàmm leen. sàmm leen. muus ngeen lool nag muus ngeen lool nee na muus ngeen lool nag muus ngeen lool yéen bëgg fallu yi ndax li jënti ngeen ba tudd ay bëgg fallu waaye li ngeen muus muus waaye nee na li ngeen di moo leen gën a muus ndax loo muus muus ndax loo muus muus sab goro gën laa muus sab goro gën laa muus te mooy seenub goro te mooy seenub goro kon talal leen wàllum diine it dina am ay émission yu am solo daw leen gaaw ngeen abonné ci chaîne YouTube Tanim TV Tanim rekk la fi nekkar ngir ay xibaar yu wér te